رقيا لعتبيب به يعينني لبيب يدلب خير اللقم هو خليل وحبيب لي مخنيا لعتبيب به يعينني لبيب يدلب خير اللقم huwa qalilul waabid li muqniyan li an tabib bihi yuinuni labib yatlubu xayral aqmi yaa xayra sikrin nusila min xayri rabbin ansala li yataqudu nusula min silbaqa walxiddami yaa xayra sikrin xat bada mi mat safaayi abada lii xalli daana raqada saa amanin wa xiddami anta rafiqi lil jinaan المكان ولي تطيب الجنان يا خير سكر محكم يا خير سكر رتلا بفم ساكرا تلا سخلي سواي من خلا وليكن وحكمي وسعت وحمي أنت سبيلي والأنيس لي خط فائق المقيس بخدمة معي الرئيس مكيسي بالمنعم يا خير سكر خدمها ما سا قلبي فما هب لي كوني مبلها بمنسر مفعمي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 diggante mbaar meeg Dakar gi laa taxaw di xalaat ku joxum njar bu yoor yooree mu set du naan diggante mbaar meeg Dakar di ndawtal nag te kenn du ko ku ëpp muy seete kay ñaanal di dàq safaan ku nii fajal sunuy woppi bi teege wal wajhu maay ja baayam waxoon kilee du keneen ku xool jëmm ja sa xel ma dal nag sa wopp ya wér ku mas di ñaanal nga wér doo jóg di seeti keneen ku nii jëndal ordonnance ku ni jëndal fas yi wootu yëpp nu ñëw mu leen di ñaanal di maslaak mag ñu nooy ñu wëteen ku yàq yërmaande booleen kër yi genn desul ku xew la muy jàmm mbaa muy xay dinan ko fa nun ñàkk nan jàq nan seef jii li làqu ku xonk ak mbokk fonk ak mbokk yegg di yoon jotaayub seex xaadir mbàkke du fa jëw jataayub seex bàmba maa jataayub yonan bu toog dafay jublu xiblaat ngir nga fonku sunaa dundam nga lépp la du jëf-jëfi neen lu neex neex bu déggeeg not du dal di koy dog ni yàlla buy woote daal koy wuy ji du keneen amoon na bis nag ca baxdaat taw bu metti bu tar mu xus biir taw ba bam julee ba mu ni leen ki yore tey yor ëllëg loo jaamu rek mu fay dem sa waraa gën a diisub ma dénkati leen amul ci jaamu yi gennub jaamu bu matalul dug juli du aj du koor seet du keneen asakaat da daa sellal du jokk ko yelloowul dafa daawoo juli di jaamu seddal leen seex mu sawa xel ma nekkoon nag yow turandoom la doon tab ga ca baayam rek la jël benn yoon Cheikh Moustapha xel ma nekkoon ak yow turandoom la doon tab ga ca baayam rek la jël benn yoon Cheikh Moustapha yaa lewet yaa yaatu ñépp nga boot yàlla ko tànn ba muy ndaw musta jaar ci Seex Mustafa yaa leer yaa yaatu ñépp nga boot yàllaa ko tànn ba muy ndaw musta jaar ci safaan Seex Mustafa yaa yaatu ñépp nga boot yàllaa ko tànn ba muy ndaw musta jaar ci safaan Seex Mustafa xel ma nekkoon nag ci turandoom la doon nu tab ga rekk la jël benn yoon Seex Mustafa yaa leer yaa yaatu ñépp nga boot yàllaa ko tànn ba muy ndaw musta jaar ci safaan yërëm nga mag ñi dimbal ndaw ñi tam sa bàyyi yépp mu soo def njëm yaa ñu ci yoon ku ñëw sa kër nga teral may aaja bépp julit doo janeew doo waxit lu naa moo lii lu doon docteur nga buy faj ci ngay faj te kenn yëg yow yaay sa baay ngir yow amoo mbàkke xej jëkki seen yaa tax ba sëñ Moodu daawul jaaxle fépp mu war a teew nga teew fa mat ko sëkki doo gantu lu mën a doon cheikh moustapha ku ko wax waxaale sayiduna sëñ siidi maxtaar ku am kab te am liimaan ubbil nga say buntu mbooleem dong nga yépp ku ñëw nga daal koy tontu ñuy muy min nga delloo nii rek ngay mën a mel xam wax ko warul siidi jàmbaar nga yaa dis gor ki ñaan subhaana rabbika rabbil izzati yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillaahi rabbil